waaw li ma ci a wax rek mooy dañ nekk ci réew moo xam ni euh, kenn moomu ko mais lu ñu bokk la muy jullit chrétien ki gëmul dara ñoo bokk réew mi buñ nee nag dafa am koom goo xamante ni bii daf fi feeñ ñu ne lii la dafa war a ne loo xam ni mhm. askan wi ci seen jëmmi bopp mhm. ñoo ko war a bokk waaye pas ñenn bëgg ko aaki moom mhm. ay tuuma dafa jóg dal ci kaw jëmm jooju Aliou Sall magam ñu dénk ko réew mu waraw taxaw taxawaayu njiitu réew mu taxaw taxawaayu chef de famille maanaam di défendre ki nga xamante ni ki mooy rakkam ba tax muy tam ñeneen sax dëmm wax ne ay rambaaj ak et cetera mm-hmm. te ñun li ñu wax du lenn lu dul tuuma yiñ teg ci kawam na leer mm-hmm. alisaal tamit dem na jël kaamil pour jéem a jouer ci sunu ngëm-ngëm na xam ne mënuñoo nax mënuta jouer ci sunu ngëm-ngëm mm-hmm. ñii dañoo génne lu ñu bind ci ay kayit daal di ne lii lii lii fii xaalis jóge na fii dugg na fii nañu indil kayit buy weddi loolu yoon it def ca lam ca war a def pas yoon tamit toog fii naan jàkk jàngoog ku mën a nodd noddal mm-hmm. dem leen fële mm-hmm. nañ teg mbir yi ci yoon mm-hmm. jàpp nañ fi Karim Wade réew mi tàkk na est-ce que tàkku fi jàpp nañ Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi réew mi tàkk na pourquoi pas Khalifa kii Aliou Sall fa ñu jaarale ñooñ ñu jaarale ko fa donc dafa war a leer da ngay laaj nag par exemple ay yi tappale ñu naan man mbirum pétrole xaw ma ci dara kenn laaj ngeen ci mbirum pétrole mbiru alal ji nga xamante ni dafa waroon a dem ci poosu Sénégal ci jibey Sénégal dugg ci poosu ñeneen ñu du poos Sénégal loolu lañu wax loolu lañu ñu wax pour mu leer laaj ñu leen ci mbàllu pétrole balaa ñuy tappale di ñu fontoo quoi artistes yi nga xamante ni lu ñu am askan wee leen ko jox mais dañuy fontoo quoi mm-hmm. alalu askan woowu nag mm-hmm. ñaan noo man sama yoon nekkul ci mbir pétrole mm-hmm. loolu yëfu caaxaan la c'est que nit ki dafa am jamono joo xam ne bu sa réew soxlaa wala mbir dal ci sa réew da ngay taxaw jël position man nag wax dëgg fa yàlla nag ci loolu laa ne waaw du damaa mere Macky Sall wala du damaa mere Aliou Sall waaye la ñu tuumaal Aliou Sall Macky Sall la mu ca taxawee rafetluwuma ko parce que réew lañ ko dénk dénkuñu ko bu doon këral problème mu këram la ñun duñ ci sax dugg mais problème réew mi la quoi donc je pense que ni lam ca war a def dafa war a def lu leer taxaw ca taxawaayu njiitu réew mais pas mu taxaw ca taxawaayu chef de famille quoi donc loolu la nay leer quoi voilà.